bu ne passé ci boppam addis ba daa wax ne li yàlla maye ñu def ko moom passé la ci gën a bañ li yàlla maye ku leen def passé la ca dana bañ ku ko def xam ne kon passé dagan na waaye lu gën mooy di ko moytu dama dem ba mënta ñàkk nga door koo def teewul nag mën nañoo dema dem ba def nga fase ga doon lu ñu sopp mbaa mu doon lu war mbaa mu doon lu ñu sib kon li mu ne waqat di yën dabu amaana bu dee fi ko sopp aw yajibu wala muy war man nga cee teg ci nattale aw yukrahu wala deefi ko sip aw yaxrumu wala muy araam booy takk da ngay wax ne góor jekki-jekki fase soxnaam ci loo xam ne amul benn sabab da ko neex rek mel ni dem na daal bu bëggatu ko waaye amul dara dara lu tax rek mu di ko fase yooyu jamono bu fasee def na lu dagan waaye nag lu dagan la loo xam ne lu yàlla gën a bañ ci yu dagan te demee noonu loolee mu def muy pase moomee moo ca raw pase moomu nag mën naa dem ba ñu sopp ko mën naa dem ba doon lu war mën naa dem bay lu ñu siit mën naa dem bay lu araam fa ñu koy soppee mooy soxnaam si daal xam ne ci moom jikko joo xam ne li muy mën a mën a muñ moom góor gi mën naa dem rek ba yóbbaale ko mu def lu araam moom góor gi mbaa mu wax ko mel ni soxnaam doon ku ñaaw ñaaw làmmiñ koo xam ne xam ne ci bopp moom góor gi ak mën a muñ waaye mën naa am rek bis mu wax ko loo xam ne dana ko dóor baray ko mbaa bokk mu dóor ko ba damm ab cëram mbaa mu ñaawal deru yaramam mbaa dana am bis mu mere ko ba saaga ko wax ko lu mu ko wërte wax mbaa mu saaga ndeyam mbaa baayam mbaa soxna si ci boppam daal dafa ñaaw làmmiñ te rekkoon na am bis mu saaga yaayam mbaa baayam bu mu xamee ci boppam ne moom ku mën a mun la ku téye boppam la waaye nag day sikki sàkk ba xam soxna si mën naa dem ba def ci lu mel nii loo xam ne faaw rek mu def ko lu araam mbaa mu wax ko ko daañu sopp kon mu tàggoog soxna soosu ndax lu koy dugal ci lu araam moom mooy too ci gën ba mu waree nag mooy mu xam ci boppam ak ñàkk sago goo xam ne soxnaam sii ñim ñaawoo làmmiñ dana ko wax mbaa mu wax baayam mbaa yaayam loo xam ne wër na ko ne moom boobaa dana ko rey mbaa dana ko def lu mu ko wërta def mbaa dana ko wax mbaa mu wax baayam mbaa yaayam lu mu leen wërta wax mbaa mu ragal ne soxnaam sii moom faw rek mu dugal ko ci dunde lu araam te du ca mën dara kon foofu lay ware mu fase soxnaam soo su tàggoog moom fa muy araame nag mooy soxna si xëy na dugal na ko ci dunde lu araam loolee waaye da xam ci boppam nag ne bu tàggoo woon ak moom it du mën a am keneen te it du mën a téye boppam faaw mooy yàlla li ñuy wax njaaloo kon day araam ci moom mu fase soxnaam soosu day war a mu téye ko kay bu dee lekk lu araam it lekk lu araam nga mu gën a woyof dem di njaaloo te ñuy sibee fase soxnaam nag mooy soxna si mi ngi koy dimbali ci lu baax loo xam ne nekkul lu war sax waaye bu demee ba tàggoog moom du mënati lu baax loolee mel ne li muy sàkku ci xam-xam bu jëm ci wàllu yàlla soxna si mi ngi ko ciy dimbale te nag bu demoon ba tàggoog moom du amati loolu saa yoo xam ne rek bu tàggoog soxna si am na lu baax lu ñu sopp lu mu daan def te du ko mënati daañu sib kon muy fase soxnaam soosu ba di fase am na lu ñu taamoo mu fase noona ñu koy tudde pasem sunna nga xam ne taamoom mu defee ko na ca des pasem sunna moomu nag mu nañ ko taamoo am na juróom benn takk-takk yoo xam ne bu ca tasee mooy doon pasem sunna kooko fase na nañu taamoo waaye bu ca benn xëttee rek al ko yóbbu ci pasem bidaa mooy xeetu fase yin woo xam ne taamooñ ko ba ci jëkk mooy fase ma doon menn bañ ko fase yaar mbaayat nag ñaareel ba benn fase boobee na mat bu nekkoon fase naa la genn wàllu fase mbaa kaaru fase yoon dana ko mottali sax bu mat benn waaye nag def na lu ñu taamuwut ñetteel ba mooy mu fase ko ci ak laab bu ko fase woon ci jamonoy jigéen ci laabut toll ci gis mbërëg mbaa dereti wasin daañ ko wax ca kanam moom day àgg ci araam laab goo xam ne itam jotewu ci ak moom benn yoon mel ne gisoon na mu génne ci régal boobaa léegi jotewu ak moom benn yoon mu daal di koy fase nag benn su boobaa kon fase na ko ci laab goo xam ne jotewu ci ak moom waaye bu ko fasee ci laab goo xam ne jot na caa joteeg moom rek du doonati pasem sunna juróomeel bi mooy mu bañoon a fekk jigéen ji nekk ci idda mu daal cee dolliwaat beneen ñu ngi koy fase bu fekkee da ko njëkkoon na ko fase ba muy iddawu bu ko fasewaatee ba tey mu dal kon nag bu nekkoon fasewaat naa la benn te fekk mu nekk ci idda it wàcc na pasem sunna juróom ngoogu bi ko juróom benneel nag mooy mu fase lépp jigéen ji te bañ a fase boppam mbaa tànkam mbaa ab loxoom mbaa benn cër ci ay cëram ni ki mu ne ko fase naa sa bopp mbaa sab loxo mbaa sab tànk bu doon ci yoon yoon da koy mottali benn bu ma sëkk waaye mu wàcc na lañu taamu woon ci fase kon juróom benn yi bu ci tasee noonu lañ taamu mooy kii fase fase benn képp benn bu mat te jigéen ji toll ci laab te laab googee jitiwu caag moom benn yoon te fekkutoon mu nekk ci idda te it lépp jëmmam la fase jëkkiwul naa ko fase naa ab ci sàngam ci yow kon ab julit lu mu mer mer ba dogo ci fase soxnaam lu njëkk a teeylu ba xam ne soxnaam si tërul ci gis deret moo xam regal la moo xam deret wasin la mu teewlu ba xam ne ba mu laabeeg léegi jotu jote wu fi moom benn yoon te bu ko dee wax itam mu ne ko fase naa la benn fase mbaa may naa la baat benn yoon mbaa boog bu agul ci ràññal gi ne ko benn fase mbaa benn baat it fekk la mu yéene ci xolam moom mooy bàyyi naa saa soxna si genn mukk bàyyi sart yi nga wax du ca benn xëttee rek kon pase ma nekkatul pasem sunna pasem biddaa la pase luñ tudde pasem biddaa la ne bu fekkee fekkul jigéen jë toll ci ñàkk a set maanaam jigéen jë tolluwul ci mbërëg mbaa wasin kon bu ko fasee benn mbaa ñaar mbaa ñett ñoo yemoo ci li waxe moom li ñu si dong lay doon waaye nag am nañu ne doonte jigéen ji tolluwul ci gis jenn deret waaye dane ko fase naa la ñetti fase juróom rek ci si def na lu araam loolu la ñenn ñu wax bu dee nag ci gis ci suwaa maali moom bu ne ko fase naa la ñetti fase dañ koy jàpp ñett daa am lu ñu wax ne moom balaa doon ñett rek da koy takk fase ko teelu ko takkaat fase ko teelu ko takkaat fase ko nga xam ne da mooy tax ñetti fase am wax jooju nag am na ñu ko waxoon ca saxaaba ya nee nañ ali ibnu abi talib ak ibnu mas'ud ak abdurahman ibnu awf ak azubair ibnu xawaam boo jàllee itam ku ñu wax muhammad ibnu ishaq ak tawus ñoo ñëpp loolu la ñuy wax ibnu taymiya moomu nga xam ne itam ku siiw la ci foofu ci penku te waa màkk yi di faral di sukkandikoo ay waxam loolu la wax ba waa màkk ñoom loolu la ñuy ubbee waaye boo delloo ci girum Maalik moom daanaka boroom xam-xam yépp ñoo maase ci dogu ci ne bu ne ko fase naa la ñetti yoon ñett lañ koy jàppee ku ñu wax sax ibnu habil bar nga xam ne ku ràññiku la ku siiw lool ku dajale ku teeg xeeti xam-xam yi daa jàpp ne moom lu ñu dogu la defe ne kenn warta génn wax jooju teewul nag am na ñu bokk ci yoonu Malick te taxul ñu ànd ci loolu dañoo ànd ak ñu des wax ne bu ne ko fase naa la ñetti fase itam daal benn rek lañ koy jàppee ngir nag sam xel bañ a jaxasoo jàppal rek li nga xam ne moo wër ci yoonu Malick moom boo ne ko fase naa la benn ñu jàppee ko benn boo ne ko ñaar ñu jàppee ko ñaar boo ne ko ñett ñu jàppee ko ñett ñett nag mooy yemukaay ba bu mu sëy moom balaa dagg ba jeex ñetti fase yi daa am bu dee nag suñ aada yi nga xam ne ñu bëree bëri ci ñuy wax fase naa la mbaa may naa la sa baat xam ñu benn faseet ñaar ak ñett wax ji gën a wóor mooy bu nee fase naa la mbaa may naa la sa baat ñu jàppe ko rek benn bu bëggee fayli ñu ne ko faylil bu idda ji jeex itam bu bëggee takkaat dañ juboo ñu ne ko sañ ngaa takkaat léeg-léeg nag ni ñuy waxee may naa la sa baat mbaa lu ko nuru xaw a jaxase nee nañ ñu ubbee ci googu wàll waaye daal li nga xam ne mooy dindi lëntiyeeg jaxasoo yi mooy rek ñu xam ne ñenn ñu ne nañ aadoo waxee rek duñ dee àtte te lañ leen di àtte mel ne may naa la sa baat bu nuroo bàyyi naa la faawu faawu ba fase naa la ñett itam daa mel ne liñ miin fii moom ci sunu barab yi mooy may naa la sa baat ak fase naa la ñooyamoo rek ka ko wax bu dee ku xam mën a ràññee benn fase ñaar ñett dañ ko laaj ba xam loo ci jublu bu dee benn ñu ne ko benn la bu dee ñaar ñu ne ko ñaar la bu dee ñett ñu ne ko ñett bu dee koo xam ne nag xamul ci loolu dara xamul ay benn fase ñaar ñett ñu jàppee ko ne fase na soxnaam benn fase rek bu idda ji jeexut mën na koo fayli te fayli mooy rek jëlaat naa saa soxna soxna fa suñ ta bañ kilifaam mbaa ay mbokkam kenn suñ caa bañ te waru caa joxewaat dara itam bu idda ji jeexee nag dañ jubóowaat itam mënees na ko koo may may gu yees waaye bu idda ji xasee jeex moom fayli mënta amatee bu demee nag ba fase ñetti fase moom niñ ko xewoon ci gannaaw te aajoo jëkkër jaar fa joteeg moom ba tàggoog moom ka ko fase woon ñetti fase nag door ko mën a takkaat loolu moom mel ni nañu bëree bëri xam nañ ko li mu ne woon nag bu soxna sa surtout toll ci dereeti mbërëg mbaa dereeti wasin bu ko fasee def na lu araam def nga lu araam du tee pase ma dal na ba soxna si tolloo ci gis reegal mbaa toll ci dereeti wasin du ñaanoon jëkkëram baatam ne ko man maa bëgg nga may ma saa baatit du tax jëkkëram sañ ko may baat ndax tolluwaay boobee nga xam ne mooy ñàkk gaa set bu ko defee teewu koo def lu araam parce que ma nag dana dal bu fekkoon jigéen jee ko wax ne ko naa la fay alal te nga may ma sabaat it koy laaj ba xam ndax jamono yooyu set nam setut bu fekkee ne jigéen ji setut mi nga deret rek dana araam mu di ko may baatam ci fay gam ko fay alal ci yooyu jamono tute nag bu ko mayee baat it parce que ma dal na ku fasi soxnaam tam toll ci gis deret moom li fekk idda jey jeex yoon da koy forcé ci ne ko faaw nga fayli ko te doo sañ a bañ doonte sa soxna sa moom bañ ngaa fayle ko gënal jëkkul di wax naa damaa fase kat te setuma kon na ma fayli bañ ngaa fayle ko gënal du tey ñu forcé jëkkër ja ci mu fayli ko li feet idda jay jeex mbaa boog nga xam ne da ko fase ñetti fase ñetti fase moom mënu su ko fayli mbaa boog muy fase muñ ko faye alal xam ne moom itam nanguwut fayli waaw bu dee fase mu nangu fayli moom faaw yoon forcé ko moom jëkkër ji ci mu fayli ko ki fas soxnaam tam toll ci ñàkk set buñ ko forcé na ko faaw nga fayli ko su bañee dañ koy xupp ne ko boo ko fayliwu day ñu tëj la kaso te fa saase saase bu nanguwut a fayli ñu tëj ko kaso bu duggee ba ca kaso ba ñu ne ko boo fayliwu day ñu dóor la ci saase saasa bu nanguwut a fayli ñu dóor ko suñ ko dóoree taxul mu nangoo fayli itam na atekat bi wax ne faylil naa ko soxnaam si am na ñu ne nag dóor ba lañ ca àgg te fekk ñu jàpp ne dana am njëriñ waaye bu ñu jàppee ni buñ ko dóoree itam du am njëriñ na àttekat bi jekki-jekki rek ne faylil naa ko soxnaam si te du sañ a bañ su nu nguutoon fayil nag ba àttekat bi wax ne faylil naa ko soxnaam si du tee yoon jàpp ne soxnaam la mën naa joteeg moom te ku ca faatu itam moroom ma donn ko ndegam fase na jigéen ji te sutut buñ ko forcé ba mu fayli faaw dina ko téye moom ba deret joojee jeex ba mu nekkaat ci laap waaye la gën nag mooy ba mu nekkee ci laap mu bañ joteeg moom dara te bañ koo fase fa saasa bàyyi ba mu gisaat dereti ñaareel dereti ñaareel joojee bu ca tolloo dana araam mu fase ko waaye nag bu dereti ñaareel ji jeexee moom te mbëgg koo fase mën na koo fase bu ko detee itam baax na waaye def na lay sopp mooy duñ ko forcé ci sa soxna si nga fase setut faaw nga fayli ko daa topp ndigal daal di koy fayli ba deret joojee jeexee itam fasiwu ko da ko bàyyi ba mu gisaat deret ba mu gisaatee deret bu fekk deret joxul moom dana araam mu di ko fase waaye nag bu deret ñaareel joojee jeexee ba mu toll ci laab bu dee fase moom yooyu jamono mën naa fase te lañ soppoon lépp def na ko bu bëggee te itam nag mën naa téye nee nañ ca cosaan Abdullah ibn Omar Abdullah ibn Omar bu Xataab la moo fase woon soxnaam te fekk soxna sa ñàkk set maanaam toll ci amee baaxut jigéen Omar nag moo ñëw ci yonante bi wax ko li doomam ji def yonante bi mer lool daal di ko ne muruhu fal yuraajiha summa yumsikha hatta tathura summa tahiba summa tathura summa inshaa amsakaha baadu wa inshaa tallaqa qabla an yamassa fa tilka alxiddatu allati amara allahu taala biha an nisaa ca bam ne fa talliquhunna li iddatihinna yonent bi dane ko digal abdullah mu fay li soxnaam soosu te téye ko ba mu laab ci deret ji bu laabee bañ jotee moom bàyyi ko ba mu gisaat deret deret ñaareel joojee nag mu bàyyi ko ba mu laab ca bu laabee ci joojee bu bëggee téye téye ko bu ko bëggee fase daal di koy fase ci njëkk muy joteeg moom daal di ko ne loolu nag moom la xoraan di wax ci fa talliquhunna li iddatihinna jojee biñ ne bu soxnaam tolloo ci ñàkk set dana araam mu fase ko génne nañ ci bu ëmbee bu ëmbee moom bu setutit saa yu ko bëggee fase rek mën na koo fase bu dee kuñ ko may koo xam ne itam ak may dong moo dox diggante moom moom jotewut ak moom dara it mu toll ci deret ak ñàkk toll deret ñooye moo bu ko bëggee fase rek mën na koo fase kon kañ ñuy wax ne bu tolloo ci deret dana araam nga fase ko mooy fekk ëmbut tey du kuñ ko may rek yem ca waaye ku toll ci ëmb moom mbaa koo xam ne ak may dong moo tax diggante moom moom waxtu ko soobee rek mën na koo dal di fase bu jigéen ji ne sama jëkkër ji fase na ma waaye maa ngi toll ci gis dereti mbërëb mbaa dereti wasin jëkkër ji ne bi ma koy fase damaa wóorlu ne ci laab la toll door koo fase mu ne kon bu fekkee jigéen ci yooyu jamono mu ngi toll ci di gis deret ja ay waxam la ñuy jàpp daal di forcé góor ga ci mu fayli ko waaye nag bu fekkoon ne dañoo ñëw ba ci kanam àttekat bi soxna si ne sama jëkkër ji bi may fase setuma maa ngi amee deret ñu laaj ko ne ko jamono yi nga toll moom di wax ndax ci laab nga toll wala ci deret nga toll mu ne ci laab laa toll kon jëkkër ja la ñuy jox dëgg jàpp ne ba mu koy fase it ci laab la nekkoon kenn du forcé jëkkër ja ci ne ko faaw nga fayli ko am nañu ne faaw jëkkër ja waat boole ci am nañu ne du ca waatante jigéen ji bu tolloo ci ñàkk set waaye nag yoon daa xool sëy boobee ne faaw da koy tas ndax baaxut mu ne kon dañuy gaawee tas say boobee waaye duñu xaar ba jigéen ja set ca deret ja dañoo bëgg gaaw a def li yàlla digle mais ndegam sëy bi baaxul rek te dees koy tas nañ gaawee tas gi buñ jekki di xaar jigéen joojee dem ba set ca deret ja su góor gi waatoon sama soxna sii li fay juróomi weer du ma fi jotee moom ba yeenti weer yi matee atkat bi taxawal ko ne ko yeenti weer yi mat na bu nangu wuta dellu joteeg moom rek mu fase ko mu gàtt mu ne bu jëkkër ja bañee ne du ma dellu joteeg moom fekk jigéen ja toll ci gis deret du tee na ko àttekat ba fase fa saasa nga xam ne kon fase na ko ci jamono yi ñàkk set waaye day force jëkkër ji itam ci mu daldi koy fayli li nga déggoon ci gannaaw mooy tëkk ko ne ko faylil bu fayliwul mu tëj la kaso jàll ne ko ca kaso ba bu fayliwut ma dóor la jàll dóor ko sax bu amee njariñ bu nanguwuta fayli nag bu daldi wax ne faylil naa ko soxnaam si nga xam ne kon foofu dañuy gaaw fase soxna sa ngir topp ndigalu alquran ba noppi nag force jëkkër ji ci mu war koo fayli ñu topp sunna muy addis bi nga jàngoon léegi ci Abdullah ibn Omar juróom moomu ca soxnaam sa dafa dajale si yoo xam ne moom bala ñoo fase jigéen ca dañuy bàyyi ba deret ja mu gis dem ba jeex waaye kenn du ko fase ci tolluwaayu deretam joojee bi ci njëkk mooy jëkkër ji amul ab dund bu mu dundalee soxnaam bu ko àttekat bi muñalee ba nga xam ne tëlëme ci am ab dund ba fase rek des ca soxna sa toll ci ñàkk set faaw àttekat bi bàyyi ba mu set ca dara joojee mu door koo fase waaye bu ko fase nag ci tolluwaay boobee ñaareel bi jëkkër ji jabar ji bu ci kenn amoon sikk soo xam ne maroom ma sëñ naa génn ci sëy ba waaye fekk jigéen ji nag yooyu jamono mu gis deret ñàkk set te bala ñoo tàggoo noonu ngir sikk sa dañu bàyyi ba jigéen ji deretam joojee jeex bi ci topp mooy bépp sëy boo xam ne kilifa ak jëkkër ja bu dikkee sañ na koo dindi ci coobareem mel ne gone bu jekkee jekki takk wala ci jamono yooyu bu jaam jekkee jekki takk te amu ci ndigal wala koo xam ne rooree alal yàq ko mu jekki jekki takk ñett ñooñu waxoon ne ni bu kilifa ga dikkee bu seen kilifa dikkee mooy seet bu wéyal wéyal bi dindi dindi bi la day dindi nag te fekk jigéen joojee toll ci ñàkk set faaw ñu bàyyi ba mu set deret di jeex moom mu dindi sëy bi mu door koo dindi bi ci mujj nag mooy rëbb wante rëbb wante dina ñëw ci kanam góor gi wax ne sama soxna si lii mu ëmb juruma ko mbaa mu ne sama soxna si saabat laa ci teg muy njaaloo ñu war a waatoo ci kanam yoon bala ñoo waatoo bu fekkee jigéen ji toll ci ñàkk set dañuy bàyyi ba jigéen ji set ñu dara waatoo ci kanam yoon mu ne passé nag am na ñeenti ponk yoo xam ne koy teqale benn benn bi ci jëkk mooy jëm ji nga xam ne mooy dalal passé ma ñaareel ba kay fase ba muy tudd baat ya mbaa ba muy bind passé ga muy lu mu jublu daañu leeral ne bu fekkee da ko rëcc rek mu tudd baatu passé waaye jubluwu ko woon du doon passé ñetteel ba mooy barab ba passé may dal moom dana ko leeral muy buumuk sëy ak nag ñeenteel ba baat ba nga xam ne moom lay wax mbaa mu bind ko mbaa mu liyaar ko ba ñu ne moom mii fase na tey fase bala ñoo jàpp ne faseem googu am na mu di ab jullit ak yéefa waxoon nañ ne ak faseem duñ ko jàppee dara teew nag amaluñ ci leeraloon ci gannaaw boo ko yittewoo nga dellu ca mooy bu yéefar ba fase gannaaw ba bu tuub nag ñëwaat ci lislaam ak lañ ca waxoon ñaar bi kii fase faaw mu nekk mu kalaf bu dee gone mbaa muy ab dof kilifaam rek moo koy mën a faseel waaye gone mbaa ab dof ku ci tudd fase itam ak neen lañ ko jàppee duñ ko jàppee dara ka fase bu xësee nekk jullit nekk itam mu kalaf nga xam ne nekkul gone nekkul ab dof bu fasee rek fase ma dal doon sax daa fekk mu màndi màndi gu araam bu doon màndi gu dagan moom nekki naan lu dagan mbaa lekk ko far tàggoog sagoom mel ne ku màndi dara nekku ci waaye nag waaye nag ku màndi màndi gu araam moom xam la ko dal moo ko teg boppam bu fasee ñu ne pase ma dal na am na ñu ne ndegam màndi gu araam la moom mu dem ba xamatul asamaan ak suuf xamatul fu mu nekk moo bañ a àgg foofu ñooye moo am na nag bu fekkee màndi gi teewu ko xàmmee ba tey la pase may dal waaye bu fekkee àgg na ci xamatul dara dara moom moo ko dof ñooye moo waaye sooy boo jàpp ci wax ci njëkk ji ndegam moom màndi gu araam la màndi moo ko coobaree moom bu fasee rek fase ma dal moo xam nag àggoon na ci mën a xàmmee dara ak dara mbaa àggutoon ci mën a xàmmee dara mel ni ab dof mu ne nga jàppaale foofu ne ku xos màndi màndi gu araam moom ci jamono yooyu bu ne goreel naa sama jaamit jaam ba gore gore ga dana ko dal di war li mu tooñ itam ci tuudareti jàmbur mbaa yàq alali jàmbur loola daal di koy war ñu topp ko ko kon ku màndi moom lépp lu mu def moo xam bakkan la rey mbaa alal la yàq faaw ñu topp ko ko loolu nag wuute naag xeeti jëflante yi mu jëf ci lenn mel ne mu màndi ba noppi jaay mbaa mu jënd mbaa mu waxante kenn ci defal ma ma fay la mbaa naa la defal nga fay ma mbaa mu màndi ba noppi dem ñu may ko soxna mbaa moom ci bopp mu maye soxna mbaa mu màndi ba noppi waxal bopp loo xam ne bi ñu ko toppee muy ngaañam mel ni mu ne diw maa ko rey mbaa diw maa ko def nàngam mbaa diw amel naa ko nàngam yooyu moom dagam ci màndi la tollu dara du ko ca war kon nag ku ñu daa màndi bu ko nangoo jaay bu nangoo jëflanteeg moom ci dara niki naa ko defal ma lee ma fay la mbaa naa la defal lee nga fay ma mbaa bu di la may soxna mbaa nga di ko may soxna yooyu lépp dara du ca baax yoon du ko jàppee dara ba tey ba màndee lu wax itam ne maa ko def kenn du ko ko topp alfubaali yu mooy ko jekki-jekki fas soxna si jaambur te amu ca ndigal doon ci jaay nag mooy mu jekki-jekki jaay yëfi jaambur te amu ca ndigal ku jekki-jekki ne diw ñu fase naa soxnaam mbaa mu jekki-jekki jaay yëfi jaambur atte bi benn la bu dee soxna sa jëkkër ja la ñuy laaj parce na kee def te amu ci ndigal bu nee mooma gënal wéel naa ko mu wéy bu nee fasiwuma sama soxna parce na du dal dara du ko ci war jaay ma it noonu la bu jaayee yëfi jàmbur dañuy laaj jàmbur boobee rek bu wéelee jaay ga jaay ga wéy bu nee man jaayuma sama yëf ñu delloo ko yëfam ku fase soxna si jàmbur ñu ne woon jàmbur boobee di jëkkër ja moom la ñuy laaj ba xam da la wéel parce na am du ko wéel mën na am ba koy waxee parce na bañ a bokk ak waxtu wa jëkkër ji yégee ba di ko wéyal ak ñàkk a wéyal kon nag kon waxtu wa jëkkër ji déggee ni bàyyam ci misaal fase na soxnaam mu wax ni ànd naa ca fase ga booba la ñuy tàmbalee idda ja di seet waxtu bàyyam waxoon ne fase naa soxna sama doom ji wax sa doom ji ne wéyal naa li sama baay def ca lay dajee tàmbalee mu ne nag ba muy tudd baati fase yi bu fekkee moo ko jublu woon donte day kaf waaye moom juumut rëcc ko ndegam ba muy tudd baati fase yi moo ko jublu woon rek fase ma dal nay dal ndax daa am yent yoo xam ne addis ba daa wax ne kaf ci ñoom moom ñàkk caa kaf ñooyam te mooy yent yi mu tudd fii muy fase googu ak goreel ak takk soxna ak fayli la mu lay jaam amee bu ne goreel naa saa jaam rek donte day kaf du tee jaam ba gore na weesoo nañ ci gannaaw ne boo ne ko may ma sa doom ji soxna ci ma jox la alali sëy nangam mu ne la may naa la sama doom ji ci alali sëy ji nga wax sëy ba dal nay am ta saasay saasa mooy takk ga dal nay sotti bu dëkk ca bëgg wax ne kañ may soxna bu bëggee wax daa doon kaf rek ñu ne ko léegi day li nga mën rek mooy fase sa soxnaa moom fase rek nga ci mën te booy fase war a joxe genn wàllu can gi ndax kuñ may soxna boo jekkee-jekki fase ko te jotewu leen dara war ngaa joxe genn wàllu can ga fayli it noonu la jëkkër ji bu sañee fayli soxnaam bu nee fayli naa ko rek ñu ne ko doonaat na sa soxna fii mu nekk léegi nee na fayli naa rek bu ne woon daay kafit fayli wu ma fayli ga sotti na kooko daal nay doon soxna sum fayli bu tuddee ci làmmiñam ne fase na soxnaam waaye làmmiñam moo ko rëcc ne jubluwutoon wax fase googee bu ne kon dañuy seet bu dee laaj borom xam-xam rek mu di ko wax bu ne ko sama làmmiñ moo ma rëcc waaye jublu ma woon a fase da koy wax ne ko kon fase ma amut kon fase woo waaye nag bu doon ci kanam àttekat moom bu amul ay seere yu seere ne da ko rëcc waaye tëyu ko faaw àttekat ba àtte ne soxnaam fase na ba tey bu fekkoon ne kooku daa xamut baat yi ñuy wax ci booy fase am ku ko sanak baat yooyu ne ko wax ko mu daal di koy wax ki bu dee déggul arab ñu ne ko waxal ne tallaqtu zawjati mu daal di koy wax fekk xamutoo li muy firi mooy fase naa taa soxna mbaa muy ab arab mbaa beneen làkkat ñu ne ko waxal ne may naa sama soxna si baatam mu daal di koy wax waaye fekkul mu xam nag loolu lu ñu tekki du tax dara war ko ca loola su tawatoon ba tàggoo sagoom ni ki siburu di wax rek nag ba tudd baati passé di wax ñu jàppe ko ne fase la lu may nag am nay seere yu mandu yu seere ne ba mu tudd baati passé yi moom àndoon ak sagoom booba bu seere yu seere loolu moom ñu jàpp ne àndoon ak sagoom jàpp ne fase am na buñ ko forcé woon ne ko boo fasi wut ñu rey la mbaa ñu def la leneen lu metti da nga tudd sax xeeti forcé yi nu muy demee na ko wax léegi waaye man ngaa gàttal ci ne buñ forcé woon ne ko boo fasi wut si soxna si ma rey la rek mën naa daal di wax ne fase naa saa soxna te du tax fase ga dal doon ci sax mën naa làq-làqal làq-làqal mooy wax wax yi nuru ne fase na te su ma ne loolu bañ koo defit xappati ne fase naa saa soxna te mën nga ko waxee ne neen ci làq-làqal it dagam forcé nañ ko noonu rek fase ga amut dara du ko ci war ba tey bu fekkoon ne forcé wuñ ko ci jëmmi fase ma waaye daa am lu waxoon ne su ko defee soxnaam fase na bu ma ko def su ma ko defee saa soxna fase na ñu forcé ko ba mu def loolee mel ne mu ne woon bu ma dugg kër diw waat naa ci yàlla bu ma duggee kër diw rek sama soxna fase na ñu forcé ko nag ba mu dugg ci kër googee ba am ku ko yenu dugal ci kër googee lu tax soxnaam fase lu may nag ba muy waat it xamoon na ne moom lii mu ne du ko def bu ko defee soxnaam fase na am na koo xam ne faaw dana ko forcé ba mu def loolee bu fekkee xamoon na loolu moom te teewul mu waat loolu buñ ko forcé ba mu def loolee du tee soxnaam fase mooy daal wax ne bu fekkee ne yoon a ko forcé forcé yoon moog lu coobare wu ñooye moo mel ne jamono yi daam amee am ku bokkal ab jaam mu waat nag ne sama wàll ci jaam bi moom du ma ko jaay mukk mukk su ma ko jaayee rek sama soxna si fase na ka bokkal jaam ba su goreelee wàllam te mën a jënd wàll bi ci des yoon koy forcé ne ko waaw nga jënd wàll bi ci des te kon moom mi nga xam ne ma bokk nag moom jaam bi te waatoon ne lu yàgg-yàgg du jaay wàllam faaw mu jaay wàllam te du ko sañ a bañ te buy jaay wàllam rek soxnaam fase ndax loolu yoon a ko ci forcé suñu ko bañ aw la staraahu nag mooy safaan bi bu fekkoon dane woon waa ji ma bokkal jaam bi daal lu yàgg-yàgg waat naa ci yàlla wàlla moo du ma ko jënd mukk mukk su ma ko jëndee rek saa soxna fase na far moom mii ci boppam mu jékki-jékki goreel genn wàllam moom mi wax loolu yoon ne ko ndegam nag goreel nga sa genn wàll yoon dalay forcé nga jënd wàllu kee nga ko bokkaloon ndax jaam bi lépp gore du mën a ñàkk jënd wàllu googee te bu ko jëndee rek soxnaam si fase kon gépp forcé goo xam ne forcé yoon la moog lum coobare wu lañ koy yemaleel mel ne bu amul suuf suuf ca armeel ya mbaa ca jàkka ja ñu dem mu ñëw ñàkk yàkkali jàkka ji mbaa armeel yi fekk mu waatoon ne moom suufam si suuf ci jàkka ji mbaa armeel du ko jaay mukk mukk bu ko jaayee rek soxnaam fase na doon forcé ku ne ko faaw nga jaay suuf soosu ñu yàqalee ko jàkka ji mbaa ñu yàqalee ko armeel yi buy jaay suuf sa rek bu ko mën a ñàkk jaay te buy jaay suuf sa rek soxnaam dal lay fase ba tey bu fekkoon ne lam ne woon waat na ci yàlla du ko def bu ko defee soxnaam fase na am na sax ku ko ca forcé waaye nag gannaaw bu forcé ga jeexee gannaaw bu forcé ga dañee la def lam ne woon du ko def mbaa pase ma daal di koy war pase ma daal nay dal tey ñu mooy waat loo xam ne faaw ma def la nit gi dëgale wuñ waat ne du ma def ak waat ne danaa def dëgg la sax lépp ci yàlla aju waaye nag du ma def daa gën a dëgër ni ki waat naa ci yàlla du ma dugg ci kër gi mu dugg ci kër gi sama soxna fase na ma waxoon ne mi ngi ko ci forcé ba mu dugg ca soxnaam du fase waaye nag bu ne nangam moom faaw ma def ko su ma ko deful saa soxna fase na moom bu ko deful rek soxnaam fase na doon sañ koo forcé ba defu ko baañ jàpp ko yeew ba defu ko it tutee soxnaam fase dana woon duñ ko forcé ca fase ga ba fase itam du tax fase ma war ko dara waru ko ca muy wax nag forcé ga nu muy demee mu tàmbalee ko ci mu ragal ñu rey ko dañ ko ne boo fasewul ñu rey la kon bu fase itam du tax dara war ko ca wala ñu ne ko boo fasewut ñu dóor la dóor bu méttee métti mbaa ñu tëj la kaso mbaa ñu jéng la maanaam jàpp la jéng yeew say tànk yooyu yëpp bu ko taxee fase itam du tax fase ma dal ndëj ci kanam mbooloo bu ko ko dee borom bañum rus toroxte ju réy la kon buñ ko nee boo fasewut ñu def la ndëj googu ci kanam mbooloo mi mu daal di fase it dara du ko ci war waaye nag waaye nag bu fekkoon ne doonut boroom bañum rus nit la koo xam ne faaliwul dara dara rus bu ko mbaa buñ ko doon def ci ak wéet nga xam ne kenn du ko fekkee loolu kon du ko tax a sañ fase lu may nag ndaj ya bari lool su ndaj ya bari moom moo xam kooka boroom bañum rus la wala du boroom bañum rus moo xam ci wéet la moo xam du ci wéet kon loola ak forcé la goo xam ne bu fase itam du tax fase ma dal mbaa ñu ne ko boo fasewut ñu nangu sa alal ji mbaa ñu ne ko boo fasewut ñu rey sa doom wala sa baay wala sa yaay yooyu yëpp kon bu fase itam fase ma dara du ko ca war laa xëy riximaa nag mooy buñ ko nee boo fasiwul sa soxna si ñu rey sa mbokk mbaa sa baay bu ndaw mbaa sa nijaay loolu moom duñ ko yemal rek buñ ko ne woon boo fasiwut ñu rey sa doom mbaa sa baay mbaa sa yaay ndegam moom kañ nar a rey ci bu fasiwut du doomam du yaayam du baayam bu fase itam ndax ba ñu rey kooka fase ma dana dal bu fase rek ngir loola fase ma dal mu ne nag bu la borom doole ji jàgg ne woon boo fasiwul sa soxna sii ma rey sa nijaay bii mbaa sa baay bu ndaw bii mbaa sa mbokk mii ñu waxoon ne bu la loola taxee wax ne fase naa saa soxna itam ñàkk nga soxna mu ne foofu nag sopp nañ nga wax ne fase naa saa soxna dëgg la ñàkk nga sa soxna mooy fase gi am na waaye nag looloo gën ñu rey sa baay bu ndaw boobee mbaa sa nijaay jooju mbaa sa mbokk moomee ba te bu la ne woon boo waatul ne danaa fase saa soxna ma rey sa baay bu ndaw bi mbaa sa nijaay ji mbaa ko demee ne ñoom ba tey kon liñ gën a taab mooy nga waat ci yàlla ne danaa fase saa soxna ndax ñu bañ a rey kookee waaye nag bul fàtte ne ndegam du sa doom du sa yaay du sa baay moom bu la force bu la force gi taxee waat itam du tee moom sa soxna fase li mu tuddoon léegi mooy ñu forcé ko ci faaw nga fase mbaa ñu def la ray googee mbaa yi ci topp mu ne nag yi mu tudd itam benn la jamono yi jaam amee bu la nee boo gëreelul sa jaam bii maray la kon man nga ne goreel naa ko te du tax gore ga am ba tey bi nga ne woon soo muy sa doom bu jigéen bii maray la nga daal di ko koy may soxna itam du tax dara war la ca waa bu nga ne woon boo tëkkul jigéen ji ñu rey la nga nangu ñu may la ko it noonu la mbaa ñu jotul la ne la waaw nga wax ne maa sàcc alal ji mbaa maa rey jiw mii mbaa kooko force la ne la waaw nga wax ne amal nga ma ab junni ba amal nga ma nàngam ba tax nga wax ko ci kaw ragal mu rey la mbaa yooyu ca toppoon it du tax dara war la ca ba tey bu dogoon ne la faaw nga waat ci yàlla nangam boo ko deful ma rey la mbaa faaw nga jaay nangam mbaa faaw nga jënd nangam boo ko deful ma rey la mbaa yow mi ca tegoon ci gannaaw rek yow weesoon yëpp benn la daa am yoo xam ne moom bu la nee boo ko defut ma rey la nga sañ koo def waaye nag bu la nee boo ko defut ma def la leneen lu bokk te rey mel ne dagg sab cër dik sab loxo mbaa sab tànk mbaa nangu sa alal mbaa tëj la kaso du tax nga sañ a def loola rey dong daal mooy loo xam ne lu ci tëkku ne la boo ko defut ñu rey la nga sañ a def loolu loolu mooy weddi yàlla bu la ne woon boo ñu wut yàlla amut mbaa lislaam du diine yàlla bañ la boo ngañut yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu rey la mbaa ñu ne la boo ngañut ab yonante te muy koo xam ne daw nañ ci ne ab yonante la mbaa ñu ne la boo ngañut malaaka sàngam kenn dogu ci ne malaaka la mbaa ñu ne la kaamil bii boo ci deful sobe sii mbaa boo ko jëlul dóor ko ci sobe sii ñu rey la ab julit buñ ko tëkkoo ci yi ne ko loo ci deful ñu rey la rek mën naa def loola moo xam xeetu weddi la wala xeeti ngañ yooyu mu wax yépp bu defee loolu du ko tax a doon ab yéefar du tax mu am ca bakkaar ba tey buñ ko ne woon boo waxul ne diw mii moo njaaloo niki boo waxul ne diw mii moo ëmbal jigéen bee faaw ñu rey la kon da nga sañ a wax ne diw mii mu ëmbal jigéen jee ndax ñu bañ laa rey waaye nag faaw ñu gëtal la gëtalu xaste maanaam faaw ñu caw la juróom-ñett fukki yar ndax setale ko derut kookee nga xam ne moom nga tuumaal ca def njaaloo ga te yoon may la ñu tuumaal ko ndax ñu bañ laa rey ba tey bu leen woon jigéen ji boo jaaloowut ak moom ñu rey la te ñu gis ne jigéen ji moom amul jëkkër day jamono yi jaam amee itam amutub sang day njaaloo ga naqariwu ko yëpp bu ca dajee nga xam ne moom jigéen ji njaaloo ga naqariwu ko te it nekkul ci buumu sëy day jamono yi jaam amee nekkul ci boobu njaam kon bu leen boo jaaloowut ak moom ñu rey la da nga sañee jaaloog moom dana wax nag bu dee jigéen joo xam ne jaaloo ga neexu ko mbaa bu ko neexee itam daa toll ci buumu sëy mbaa boobu njaam ba tey nag jigéen jooju nga xam ne yoon moo la may nga jaaloog moom ndax ñu bañ laa rey faaw ñu gétal ñu gétalu njaaloo gannaaw boo jaaloog moom faaw ñu gétal la gétalu njaaloo dañ laa may nga jaaloo ndax ñu bañ laa rey kon nag daan ñu gétal moom gétalu njaaloo nga xoolaat li tàmbalee ci di xilaafi kufri ka sabbi wedd yàllaat mboolem yi nga xam ne moom la ci teg moom ba ci njaaloo googu buñ ko tëkkoo ci boo ko defut ñu rey la rek mooy tax mu sañ koo def waaye buñ ko tëkkoo ne ko lii boo ko defut ni ki wedd gi mbaa yooyu daañu la dóor mbaa daañu la tëj kaso mbaa benn ci yee nga weesoon waaye dug rey kon du sañ a def dara ci yooyu bu koy def rek ñu jàppee ko ne daa murtad maanaam daa génn ci lislaam ñi mu wax ne buñ la ci naree rey ni ki weddi yàlla mbaa weddi yonante bi mbaa ŋaañu yàlla mbaa ŋaañu yonante bi ak ñu ci teg mu ne buñ la ci naree rey boo ko defee du wàññi dara nga ne nga muñ ñu rey la nga ñàkk sa bakkan moo gën ngay bañ ñu rey la ba tax nga def kenn ci yee ba tey jigéen bu xiifoon ba nga xamee ne bu lekkul dee am ku ne ko nag soo nangoo ma jaaloo yow ma jox la loo lekk ndegam amul pexe dana dagan mu njaaloo ndax sàmme ko ba kanam waaye nag moom itam mu muñ bu dee dee itam dee rek te bañ njaaloo moo gën ci moom mu ne nag bu fekkoon ne dañ laa wax ne la boo rëy sa mbokkum julit nii ma rey la ah koy dana arab ngay rey julit boobu ngay bàyyi ko ñu rey la waaye doo bëgg mucc bay rey ab julit ba tey bu ne ne woon sa mbokkum julit mii boo dëggut loxoom bii mbaa tànkam bii ma rey la it du tax nga sañ a laal jullit boobee ba tey jigéen joo xam ne moom daa nekk ci buumug sëy mbaa jamonoy jaam xewee jaamub jaambur la mbaa moom ci boppam njaaloo ga neexu ko boo ko defee da nga koo fàttali waaye moom njaaloo ga neexu ko kooku bu la nee boo jaaloowut ak moom rek ma rey la it ba ñu rey la tax nga sañ a jaaloog moom dana araam ngay jaaloog moom ngir bañ ñu rey la da ngay bàyyi ñu rey la waaye boo sañ a jaaloog moom buñ ko nee boo reyul jullit bi ñu rey la ba tax mu rey jullit boobee faaw ñu wëlbatiku rey ko fayu ci moom duñ ko ne itam boo dëggut loxob jiw mee mbaa tànk mbaa nangamam yow ñu rey la it bu taxee mu dagg loxob kookee jullit boobee mbaa tànkam boobee itam faaw ñu fayu ci moom loolee mu def jullit boobee mu ne nag lépp luñ ko waxoon ne ko buñ la ca forcé du la war bu forcé ko dañee te wéyal loola ayut mu daal di wéyal loola dara nekku ca mel ne jaay mbaa jënd waxoon na ne buñ la ca forcé ba nga jaay mbaa nga jënd itam dara du ca war waaye nag kon gannaaw bu forcé nga jeexee boo ko coobare woo yéen njaay ma mbaa njënd ma dara nekku ca ba mu des nag buñ la forcé ci faaw nga takk kii muy sa soxna mbaa faaw nga maye kii mu sëy nga ragal nag ba tax nga takk kookee mbaa nga maye kookee loolu moom bu forcé nga jeexee du ñu mën a bàyyi sëy ba yëy sëy ba ak neen lay doon faaw ñu waxtaanaal buñ juboo wéyal ko maye maye gu yees awaat fa mu war a aw waaye duñ mën a wéyale lañ jëflante woon ca forcé ga